alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bifurudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani alhamdulillahi aoudu bikalimatillahi tammati min charri ma xalaq bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi jaalana xayra ummatin uxrijat linnas wasalaatu wasalaamu ala nabiyil huda wa rahma sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi isaanin ila yawmi ddin bismillahi rahmaani rahim <coughs> barke cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuba eski sëriñ tuba ci sëriñ tuba borom tuba moromantewul bokki jullit bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kenn ku ci nekk di la fekk fa nga nekk di la tàllal loxo di la baalu àq di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp saa su nekk di sàkku ci ñépp ak ñaan di baalu àq ñëpp ginnaaw loolu ñaan yàlla sunu borom mu jéggal nu ci mbaaxam ak yërmandeem ak moom gum nu moom ñu di jaamam di ko sant ci xéwal yu bari yi nga xam ni bi ci gën ëpp ci njariñ mooy boole gi nu booleeg Sëriñ ginnaaw loolu di ko ñaanaat ci ndigalam Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifatul islaam fil ard ci coobare suñu borom mu wutu fi Cheikhul Khadim ñu di ko ko xoole yàlla kartanal ko may ko fan wu di ko wér taw fexeel ko ci yéeneem ci toolub lislaam bi ñu dénk Serigne Touba nu ànd ak moom nag ci liggéey yépp te ñaan daje ci ngërëmul sëriñ bi dikkat nañ tey doole te santati yàlla deen ko seereel ci fekke gi ak tal gi ci àjjuma ji tey bii 9h ci guddi nii di juróom-ñeenti waxtu ci jataay bi ñuy seq ak ci dund sëriñ bi ak bëgg ñëpp di ko dund jataay bi aju ci nekkuk sëriñ bi njaareem 1912 ba 1927 boobu ba léegi nu ànd koog yéen tey war a doon fukkeelu émission bi ak benn su ma ci juumul ngeen jéggal ma. fukkeelu émission bi ak benn muy fukkeelu jotaay bi ak benn kon nu ànd ak Serigne Abdoulaye Sow jërëjëf ci fàttali gi ci wàllu xarala gi fii ci Touba Mbakkel Mahrousa studio Cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke di am mbégte bu baax ci bokk yépp nag bokki taalibe murit yépp jullit yépp d'une manière générale waaye bokki taalibe jullit taalibe yépp murit xaasatan ci yëg gi ak cofeel gi ak ànd geeg nun li ñuy nab nabi di ko liggéey sëriñ Tuubaa di ñaan yàlla ñu ci daje ngërëmu sëriñ bi te du séddoo tuyaaba yi ginnaaw loolu nu dikkaatee kon ci tomb bi ñu toll woon xam ngeen yéen a ngi xam liñ jaar yépp bu ci nekk xam ngeen ko noo ngi toll woon nag ci étape bu am solo ci nekkum sëriñ bi njaareem am solo lool lépp am solo waaye bu ñëw rek gën a yéeme bi ci des bii nag dafa doon lu universel universalité universalité sëriñ bi maanaam wër gu mu wër adduna sëriñ Tuubaa day feeñ fii ci li xew te tàmbali nañ ko bee yoon mooy la mooy makkatul mukarama ak madina muy xijaas ak najd waa riyaat ak la ca topp ak yooyu yëpp biir Arabie Saoudite daal ba mu tuddagul Arabie Saoudite am ñu fa ñëw fekk fa sëti yonent bi di leen bundu bëgg nangu nguur ga ci ñoom wala nangu doxalin wa nde loola du nguur waaye jiite gañ jiite woon muy wahabi yu ni ñuy wax les wahabis fekk sëti yonent bi ak shérif yi ñu sonal leen indi leen coono yu méttee méttee méttee métti dal ci seen kaw fekk leen madina di leen lor bañ jaaxle lool ñu tàmbalee bindanteeg Serigne Touba ay lettre ba la mujj nag lettre yo doyatu leen ñu jóg nag jëm si njaareem loolu bi muy xew Serigne Touba mi ngi njaareem résidence surveillée naar ya nekkoon dina ak njabootu yonent bi ak ñépp ña fa desoon délégation lañu defoon mu toll ci juróom-ñaari nit foofu nag maa ngi sëriñ gërëm sëriñ Tàmbay te maa ngi bàyyiloo xel bokk yépp ne leen mbooleem jàngat yi sëriñ Tàmbay di jàngat bu ma seen ngeen dellu ci ginnaaw yépp di ko topp ndax bii mu mujjee jàngat rek bi ma defee waxtaanu nekk sëriñ bi njaareem ci ajuma ji weesu génn na ci loo xam ni lu am solo mooy lan lan moo tax waa madinatul munawara romb Égypte romb Irak romb Turquie romb Iran romb pays golfe yépp romb Maroc romb Tunisie romb Algérie romb romb fépp seen xel demul fan fu dul ñëw ci Serigne Touba ngir mu xettali leen ginnaaw bu leen wax wahabis yi sonalee ngir bëgg leen a déloger dàq leen loolu nag indi na ko ci njàngat mi loolu kon am na lu muy tegtale lan moo def ci seen xel ñu bàyyi fii ñëpp ñëw njaareem fekk Serigne Touba di wutu ku leen wallu ñoom waa war a ndax senegal rek mooy pays boobu mu booba l'islam tolloogul Sénégal na tolloogul ni mu war a toll sax am na réew yoo xam ne kenn ay kilifa nga fa nit yi diine lu tax ñu romb Égypte ak ñu Sénégal loolu question la bu ñuy posé man nag bi ko sëñ Dame waxee seetlu naa ko waaye gisaat naa tontu li ci biir tontu li mooy Sëriñ Tuubaa moo bind ci loxoom ni wa jaala al islaama wal quraana wa diatayni lii loolu mooy lan man Sëriñ yàlla dénk na ma islaam ak alquran ndax yow da koy gëm lu da nga koy weddi ndax da lay neexam da lay naqari Sëriñ Tuubaa lijjantiwul loolu ki ko ko dénk la ni moo garanti loolu signé na ko kon yow mi ko gëm ak koo gëmul kooku moom waxal wuñ say wax kon ndeke bind na loolu kon ndekete waa Madina am na lu ñu leen soufflé ki ñu dénk lislaam nag ak alxuraan wax dëgg yàlla bu waa Madina na nawar ba demee ba jaaxle amatuñ fu ñu jëm ci kooku rek lañ mën a jëm loolu moo waral kon ñu bàyyi fi dëkk yépp bàyyi fi nit yàlla yépp bàyyi fi ñépp ca jamono yooyu 1922 jóge Madina def délégation de sept personnes Omar yi jiite leen ñu ñëw nag ci mag njaaram gi fekk sëñ bi li ñuy wut si wax naa leen ko sabab bi bëggoon ku leen wallu ku dox seen diggante ñi leen di fitnaal loolu kon ngi xewoon ci njaaram 1341 ci Égypte bi muy junni ñett téeméeri at ak ñeen fukk junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk benn 1922 kon loolu leer na nañ na ko ñëpp xam ni dañ ko dénk lislaam kon leneen leen la def ci seen xel xalaatuñ kenn ak Madina ni mu sore ak Sénégal ñu bàyyi dëkk yépp ñëw jawar sëñ Touba loolu moom yaakaar naa fi ñu toll bokk yi war nañ cee jàngat lu baree bari nag te nangul sëñ Touba topp ci ginnaaw ginnaaw ñoo ñee nga xam ne ñoo sës ci yont bi rëkk rëkk rëkk rëkk jamono yooyu ñoo jëkkoon a ñëw jiital sëriñ Touba kon la wax abatul la bi waaye bi ñu ñëwee lan lañ wax xasida gi nga xam ne Omarul Kurdi di porte parole bi moo ko yoroon ñu bind ko jëmale ko ci Sëriñ Tuubaa xasida gi nag laa leen waroon a indil tey mooy lan poème yi ñu def ndax ñoom seeni wax li ci ëpp dañ koy def ay poème dëgg la naan dina am ay bind lettre waaye danay doon ay poème waa Madinatul Munawwara lii lañ wax Sëriñ Tuubaa ci biir njaarim bi ñu egsee nuurul wilaayati saatiul burhaani yahda bihi mutanawirul adhaani fandur lahu mutajallidan fi wajhi man jalla sawaad aljahli fi suudaani ذاك الإمام الشيخ أحمد من غدا مترديا بالحمد والشكران شيخ الحقيقة والطريقة والهدى هادي الورى بالحق والإيمان بدر المعارف مستمد بدورها بحر المعارف فائض الإحصان yaa xaadimal muxtaari man asraaruhu jallat an ittidaadi wa tibyaani xallat makaarimukum bi turbati toybatin fatatayabat bi ataaika alhattaani fa atat tuqaddimu shukraha fi soxsina li janaabika alaali rafiici sha'ni fa naruumu minka madal madaa imdaadana bi makaarima تنكي العدو الشام إذ أنت حارسنا ومذهب بؤسنا يسري بلا قاس الورى والداني يسري بذا قاس الورى والداني فانظر إلينا نذرة قدسية تجلو العنا في السر والإعلان واعطف على أهل المدينة عطفة ترضي النبي المصطفى العدناني صلى عليه الله خير صلاته وأثابكم ما wax Serigne Touba nu tekki ko nag ngeen xam li wax ci biir bayit yi mooy lan bayit yu jëkk dañ ni nuurul wilaayati maanaam leerug ngeen ko leerug wilaaya jolli na éclaté na waaye ci kan la éclaté ku am bopp ku yeewu ku amum xel ci kooku mooy mën a gis leer googu éclaté mais du ab dof du am yennax leer wilaaye éclaté na feeñ na fës na jóg na ci kan ci mutanawwirul azhaani koo xam ne am na bopp ku yeewu nuurul wilaayati saati ol burhaani yaxda bi mutanawwirul azdaani nee na leer googu nag am na ñu ci mën a jëriñu am na ñu ci mën a xaj mais ku yeew rek moo ci mën a xaj ku yeew ku ku iñaanul ku soxorul ku yàlla dimbali ku am ku gëm kooku rek moo ci mën a xaj ci leer googu ma leen di boo wax ba tey nag waxagul leer gi la leer gu yàlla lan la mu mel dañ bu ñu ko laajoon waaw leer gi ngay wax lan la mu leen te te wilaaya googu xam ngeen dañ koy donnante li fi yonent bàyyi woon ci wilaaya leer googu dañ koy donnante mi ngi dem ci ñi nga xam ne dañuy sukkandiku doxal na ak di ubbi boppi nit ñi leer googu day donnante ñëw ci ñoom loolu nag moo nekk seen Sëriñ waaye dal bu doon koy laaj yow mii ki ngay wax kan la daf ni fandur lahu mutajallidan fii wajhi man man kat leer gii ma lay wax ni jolli na boo bëggee xam ci ku mu nekk xool xool ko ci kanamu ki nga xam ne xool ko ci kanamu ki nga xam ne moom moo nekk ci Afrique boo fa demee ci Afrique ci nit ñi ñuul ka fa jëlee ak léer réer naq fa ak réer ci sowu jant ci Afrique kookee lañ wax ni leer ga jolli na nekk ci moom ba tey nga bëgg ko laaj mel ni ko naan ko ba tey xamaguma koy wax de mun la dakal imaamu cheikhu ahmadu man gada boo ko xamul nag léegi ma ma ma teg ci baaraam mooy imaam cheikh ahmadu muy ahmadu bamba man gada mutaraddiyan bilhamdi wa shukran moom mi nga xam ne nag moom moom moo sol mbubbum mbubbum cant cantu zahir ak baatin ki sol mbubb moomu laa lay waxal mooy Cheikh Ahmadou Bamba kooku laay bëgg a wax ak yow ni la leeru wilaaye moo joll ci moom moom nag moo sol mbubbu mbubbu mbubbum cant ci zahir ak baatin ba tey boo bëggee mu mu del moom mi ngi définir sëñ Tuubaa moom ñu ngi koy définir ñoom ñoom waa Madina cheikhul xaqiqati wa tariqatul huda ñu ngi koy jéem bokk nee nañ kooku mooy cheikh cheikh cheikh dëgg dëgg dëgg dëgg bi baatin bi dëgg kooku mooy Cheikh Ba wa tariqa mooy borom yoon wi nga xam ne yonent bi jox na ko yoon jox ko tegtal boo xam ni képp ku topp ci moom mu teg la ci yoon jubbanti la ci dëgg ak ngëm yàlla waaw ma dinaay leeral sëñ bi de badrul maarifi mustamid bu duuriha bahrul maarifi faadil ihsaani ne nag kii mooy weeru xam-xam wi weeru xam-xam wi nga xam ni mi ngi ko xëcc ci ak géeju xam-xam gi nga xam ni képp koo xamante ni bii bëgg nga egg ci sunu borom muy am xam-xam bi nga xamante ni moo lay jariñ ci Serigne Touba ngay ñëw waaw moom mooy badrul maarifi mustamiddu buduriha baarul maarifi baarul maarifi faidil ihsaan yi ihsaan bi la mujjee mooy xam-xam bi nga xam ni rafetal gi nga xam ne egg gi nga xam ni ku ko bëgg yaa ngi koy jële ci badrul maarifi bi muy Sëriñ Tuubaa ci gàttal yaa xaadimal muxtaari man asraruhu daal ne yaa xaadimal muxtaari dégg nga ñoom ñu ngi koy wooyee na ko na mu tudd dëgg-dëgg yaa xaadimal muxtaari yow mi nga xam ne yaay liggéeyal al muxtaar muy yonent bi yow mi jëwriñam yow mi nga xam ne say mbóot yow Sëriñ say mbóot ak say secret gellat anit te addaadi wa yi xanaa ko bari solo rek de waaye jéem koo xam nan nii la toll wala jéem a lijjant nu mu doon loolu ab coono rek lay doon nit mënu ko waa dina ñoo wax li sëñ Tuubaa jallataani taadaani kenn mënu koo feeñal lu nit ñi wax wax wax mbóot yi nga yor secret yi nga làmboo yàlla boole ko yow du luñ mën a wàññi di ko xam du luñ mën a feeñal ni ko nag xalat makaarimukum bi turbati toybatin fa tatoyabat bi ataaika alhëttaani mu ni ko sa teraanga day sa teraanga yow sëñ Tuubaa egsi na ma madinatul a baawaan na ci suuf su dina fa tatayabat bi ataaika alhaddaani waa madina yépp jariñu nañ ci sa teranga yow sañ Tuubaa waaye nag loolu moo tax nag fa atat tuqaddimu shukraha fi saxsina jariñ googuñ jariñoo sa teranga nag ak say ñaan ak sa lépp nag moo tax nu ñu ñëw def délégation juróom-ñaari nit waa madina yebal nu ñëw di la sant si jaarale ko nag ci sama jëmm ji man muy représentant bi di porte parole bi li janaa bi gal aali rafi shani kan lañuy sant si jëmm ju kawe ji jëmm ju kawe ji mbir lool muy sëñ Tuubaa moom la sant si fa narum ma ka madal mada imdaadana bi makaarima tunkil aduwa shani waaye duñ la bàyyi noonu de sëriñ bi noo ngi sàkku ci yow nga tàllal nu nga jox nu nga yéwénal nga baax nu dolli nit sa teraanga yi luy tax noon bële nga xam ne moo ñëw fekk nu fa nekk jotiwu nag moom dara mu di nu sonal nga dolli ñu sa teraange ne loolu tàqaleeg moom id anta xaarisuna wa mudhibu bu sina yasri bila xaasil wara waddaani mu ni nag ndax yow Sëriñ Tuubaa yow kat yaay gardien bi yonent bi sallallahu alayhi yaay gardien bi wa mudhibu usina sunu njàqare lii ak sunu coono bii xam na ni yow rek yaa ko fi mën a jële yaa na ko mën a dàqal yadri yadri bida xaasi xaasil wara waddaari yadri bida xaasil wara waddaari ngeen jégal ba ñu ne ko loolu nag moom ki jege ak ki sore ñoom ñëpp xam nañ yow yaay gardien yow yaay gardien bi xam nañ it lii nu dal yow rek yaa ko mën a dindi loolu moom ku jege ku sore ci yam ñëpp ku ye ku am xel daal xam nga loolu moom moo tax ñun la fandur ilay naa nadratan qudsiyatan noo ngi lay ñaan nga xool nu xoolu buy jóge ca sellu yàlla ga suñu borom xool buy jóge ca sellu yàlla ga tëjlul ana fi sirri wal i'laani xool googu nga xam ne ni ngi ci yaakaar boo nu ko xoolee mu dàqal nu nag suñu coono bii nu nekk ci zahir ak baatin muy lanu bàyyi madina wa atufa ala ahlil madinati atfatan waaye waaye sëñ ñeewanteel ñeewanteel nun waa madina turdi nabiyal Mustafa al Adnani boole na ci noonu njabootu yont bi ñeewante nu ñeewante ñeewanteel ñeewante ñeewante goo xam ni yonent bi da ciy bëgg da koy gërëm moom mi nga xam moo sox ko ci Adnaan noonu nga la koy ñaan nga xool nu nga ñeewante nu salla alayhi llahu xayra salaatihi wa asaabakum ma daamatil malawaan yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa sallam am yàlla ko yàlla doole xéwal te yow yàlla na la yàlla fay boole ci nag ci sa xidma bi nga xidmal yonent bi boole nu ci yàlla na la yàlla fay lii la naar yi ñëw fekk sëriñ Tuubaa ci njaareem jóge ma mu da wax ko bi ñaari baat la ci teg ci bu dee tontu waaye bind ne xasida mooy laqad santu bu ahsantum risalatan wa maqaala mun leen wax ji de tedd na lool màgg na lool rafetal ngeen itam rafet na tedd na li ngeen wax lépp mooy li ngeen bind ak leen wax nga di cee bég loolee nag fa lañ ca nekke waaye sëriñ bi li la leen tontu fa saase ni leen bu fekkoon ni mën ngeen a nekk ñaari jëmm yéen ñii mën ngeen a nekk ñaari nit nekk njaarim nekk ma dina di ngeen xam ne fii ngeen di waxee fii ngeen di wax ak man nii ay wa leen taxoon ñoo jeex na takk bu ngeen mënoon nekk ñaari jëmm di gis la nekk foofa di gis li nekk fii ngeen xam ne kon aywa jeex na tàkk tey maa leen wax loolu waxante naa ko sama borom ñaan na ko ba may na ko wuyu ji na ma ci fa saase leen wax loolu ñaan naa ko sa borom waxante naa ko ay wi leen taxaw na ñëw jeex na tàkk ca ma di lu mën a war bu ngeen noonu nekk ñaari jëmm rek gis li ma leen wax yemul foofu nag juróom-ñaari fan lañ wax ni lañ fa def muy semaine. sëriñ bi sëñ ma sàmbale leen dénkoon moo leen doon ganale sëñ ma sàmba Mbàkke rekk Cheikh Xaadim dib taalibeem moo doon ganale gan ñooñu bi ñu leen ganalee bu juróom-ñaari fan yi jeex la leen sëriñ bi woo ñu ñëw kenn ku ci nekk mu xëppale ci xaalis loo xam ni danga tiit kenn ku ne mu jox la xaalis yamu ci de jël beneen xaalis ni leen bu ngeen demee ca rawda sharifa teg leen ko fa muy sama addi jëm ci yonent bi sa alayhi wasallam shérif yi jariñoo ko jëfandikoo ko xoolal Sëriñ Tuubaa kon xabru bii boo ci ñëwee fekk màggal di ci fekk ay trois cent millions quatre cent millions loolu dana am lu war a wax Sëriñ Tuubaa mooy yónnee ñooñu jox leen xaalis ne leen lii yéene ko moom kenn ku ne ba nga jaaxle mu lii lii nag tegal leen ma ko ci raw Rasul mu sama addee jëm ci bi ak waa Madina loolu sëriñ bi def mu des nag bayit woo xam ne ak xasida goo xam ne bind na ko ngir circonstances yi li xew nii gis ngeen bu ngeen demee ci yoonu murit xasida yi ngeen di gis ñu bind ko ci daal mel ni daal muy am yu xonq-xonq ay dessins yu ko wër am yu xonq-xonq yooyu Sëriñ Tuubaa bind noonu ñu yóbbu ko mu jox ko ñi ñëwoon jóge Madina ñu dem Madina muul ko delloo siwaat ko Sénégal am nañu ko foo ko gisee rek xam na ne yooyu moom la xasida yi ñu bind ci daal mu am ay yu xonq Sëriñ Tuubaa bi ko bindee jox ko waa maddina ci lañ koy yóbbuwaat bi ñu yóbbu rek dañ ko móol yónnee waat ko senegal am na ñu ko am am na ñu koy gis kon loolu de gis njëkk mooy lan xasida gi mu njëkk bind jëm ci mbir mi leen tax a jóg ak loolu mooy Muhammad Rasulullah kuy déglu Ablaye Seck jànkatu ko saayit lii may bëgg wax soo ko déggee rek ndax macha allah baat bi ni mu koy jàngee dafa leer yàlla na ko yàlla suñu raw kartanal yàgg na nag ku yàgg déglu Ablaye Seck di nga ko dégg. xasida gi sëñ bi mi ngi ko mi ngi ko tënkee Muhammad Rasulullahi bayit bi njëkk mooy man shakka fii kaw ni kaw ni man shakka fii kaw ni kaw ni fii kaw ni ibni abdillahi muhammadin nuuril li mu njëkk bind mooy maa ngi leen di xamal leen képp ku sikki sàkk wala nga am dut ci nekk gi doomi abdullahi ji nekk Seydina Muhammad nekk gi mu nekk di leeru bindeef yëpp yëpp yëpp yëpp leer nekk gi mu nekk lumière bindeef yëpp toute la créé li yàlla créé lépp ci doomu aadama ku ci sikki sàkk rek yow ab def nga buy fo doo dof waaye dof buy fo nga boole ci ku ci sikki sàkk rek ci loolu daal di teg ci ni laa yantahi madinatul munawwara suun xamaha suun xamaha du baqain wasawara laa yantahi madinatul munawwara suun xamaaha du baqaain sawara wa sawara mu wax ni madinatul munawwara googu kat yàlla aar na ko yàlla aar na ko yonent bi mooy gardien bi foofu man nag maay jëwriñu yonent bi maay ki ko liggéeyal déglul yàlla aar na ko yonent bi mooy gardien ba man maay jëwriñu ki koy liggéeyal kon loolu li muy tegtale mooy moo tax ñoom ñu jóge foofu ñëw fii ci moom dan nag yàlla aar na ko ci lépp ay ak lépp ñaawteef kan moo ko ci aar ki nga xam ne mooy aji des ji mu yàlla suñu borom moo aar Madinatu Munawwara ni seen xol sedd dara du fa am bis tey loolu la di Sëriñ Tuubaa ba ci bayit di mu dellu si ni akrama rabbul arshi dal madina ila jinaanihi wa saana diina daal ni yàlla teral na borom aras teral na dëkk boobee di Madina ak ña fa nekk ba yow xiyaam nag la ko teral te it aar na diinam ji mu leen ayoo moom jàppaleen ni bis ni ki tey moom jeex na te dóor fa am ba yow wal xiyaam dadul jeex nag dafa gudd lool moo tax duma ko mën a wax lépp ma indi lii rek su ko defee incha allahu rabbi at ajuma ji nu jëm li Sëriñ Tuubaa bind ci xasida gi lépp ak xasida gi ca toppaat ak la mu leen wax ci tontu lépp ma indi leen ko incha allah nu jàll ak yéen ci nekk gi sëriñ bi nekk njaareem kon lii lañu indi woon tey mu jëm ci wàllu délégation bi jóge woon Madinatu Munawara di seet si sëriñ Tuubaa njaareem te fekk ko fi def juróom-ñaari fan dégg ngeen ni leen terale ak sëñ ma sàmba ganale leen ak lim leen jox ak lam leen tontu ci lañ doon tiit te bu ajjumaa jiiru jëm bu soob yàlla képp ku teewlu di nga gis li ci topp man ci teg sa bët incha allah kon nag mu dellu noonu santaat yàlla bi nu yàlla boole ak Serigne tubaa bi nu yàlla boole ak jëwriñu Yonent bi bi nu yàlla boole ki yàlla dénk lislaam ki yàlla dénk alxuraan te xam ngeen weeru alxuraan ngi bëgg a ñëw muy shahru ramadan incha allahu rabbi dinañ ci dellu si ndax jataayu tey bii bu jàllee bala maa toog di jàkkaarloo waat yéen ci kàttanu yàlla talaata rek lay doon muy mardi vingt heures trente ci jataayu Murid Saadix incha allahu rabbi kon nu taxaw tuuti soog a dikk nag. ci ponkum ñaareel bi nga xam ni euh, saa su nekk bu ñu jàllee rek danañ ci dikk ci ak taxaw tuuti ngir laayee biir suñu bopp ak ñëpp rek ak conscientiser nit ñi nu xam fi ñuy teg suñu tànk ak li nga xam ni mooy justice ak dëgg ak tege ci yoon ni ñu ko war a toppee ak réew mi ni ñu ko war a waggare ak li ñu ci war a def kon ñu taxaw tuuti dellu si incha allah. الحمد لله الكريم سلمنا على صغار بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني jërëjëf Serigne Ablaye Sow li may jëkk taxaw tey seetlu ko ci ajjuma ji mooy ñaari yëf yu ma déglu ñun ñëpp lu dégg ko muy lu mat taxaw seetlu ndax nit ñi ñoo daan naqarlu naan dëkk bi amul yoon yoon doxaluñ ko doxaluñ yoon doxaluñ yoon injustice moo fi am justice niñ koy doxal ci réew mi baaxul loolu nit ñi ko doon wax naka jekk ba indi na fi ay coow bu dégg ba waaye bu ñu demee nag ba nga xam ñi ñi ñu dénk yoon ñuy ay kàngam di boroomi xam ko ay procureur ak i juge nekk ci dëkk ñuy doxal yoon suñ demee ba ñoom seen bopp nag ñuy fóot seen bopp wala ñu bëgg fóot justice bëgg fóot doxalin yoon boobaa tiitaange war naa am boobaa kenn dootu werante nag Sénégal du dëkkub yoon du dëkkub dëgg doxaluñ fi dëgg lii moom ñëpp dëgg nañ ko ki ci jël ki ko muy procureur Aliou Ndao bi yoroon wàllu CREI yi ñu dàq ko ci dàq yi nu amateure boo xam ni gàccal sax ci état ñuy dàqe noonu procureur mu nekk di juger li saytu ñu relever ko ci fonction ci loo xam ne amul lenn luñ ko mën a layale waaye nag man damay wax ni yàlla buy defar day mel ni ku yàq procureur Aliou Ndao moo génn démb wax li mu wax ci wàllu justice ñépp dégg ko kon xam ngeen ni justice bi ak nii ñuy àttee tegewul ci yoon ndax bu waxee ni ay procureur ak i juge dañ leen di jox ay ndigal ñu koy jëfe waaye du loo xam ne ñoom seen bopp ñoo àtte nañu war a attee loolu kon léegi dëkk bi moom fut doy war di yem egg na fa nee naa du du novice ab procureur moo wax loolu nekk au cœur de la justice ci digg xolob li ñu ñuy atte waaye nag moom li ma koy wax ni war na sant yàlla mooy war naa santaat Sëriñ Tuubaa baax a baax baax bi ko yàlla boole Sëriñ Tuubaa te gëm naa ni moom am na ndimbalul Serigne Touba ndax tey bañ koy dàq en tant que procureur muy àtte ci mbirum Karim Wade jamono yooyu ku yëkkati woon ay kàddu walla nga wax dara dañ ne noonu kii déedéet justice dafa war a am ci dëkk mais tey nag dañoo bàyyi ba mbir yi si boppam mooy lan procureur yu ndaw li tax ma ne war naa sant mooy bi ko yàlla dimbalee ba bañ àttee àtte ba muy procès Karim Wade ba. ak la ca ña ca àndoon yàlla dimbali ko ba loxoom laalu ca atte ba war naa santaat bu baax wasilaam war naa santaat bu baax sëñ Tuubaa te man wér na ma ne gisuma ko waaye xam naa ne sant na sëñ Tuubaa ndax bu mbir mi jaaree woon ci loxoom waxuma la conscience am du tranquille waaye bu boobaa ëllëg bàmmee la nga koy xaar sëñ Tuubaa mi yaakaar mi ngi koy xaar bu yàlla ak yonent bi nit ak jinne ñépp taxawee woon xiyaam mu xool yaakaaram ni ko man maa atte woon lii kon war naa sant yàlla bu baax biñ ci raxasee loxo loxoom génn ci loolu dañ ko nangulub taalibeem moom ko ku nangulub taalibeem la ku war a sant yàlla la ku am ndimbal la te lu mu wér laa wax bi ci topp mooy Souleymane ko bi bokk ci union de magistrats wala mu jiite ko su demee ba wax li mu wax te loolu yëpp ñoomu nee na du kenn waxul de bi yoon kenn waxul waa justice ñooy wax kon xam ngeen réew mi lu fi jaar rek quatre-vingt pour cent wala soixante-dix pour cent tegewul ci yoon kon loolu daal amoon naa taxaw seet loolu nag li muy jur mooy yàlla da koo bañ yàlla moo wax ci alxuraan ay yoon yoon yoon yoon ni dama bëggul injustice gis ngeen am na yu dal réew mi am na yu ay catastrophe yu am ci réew mi ay dara li koy waral li ci ëpp am na yeneen yu koy waral de mooy yeeg yëpp. waaye li gën a gën a bañ bokk na ci mooy injustice ndax moom mi nu moom bind nu du ko def ginnaaw moom bu ko neexoon sax mu jëfandikoo loolu te boo boobaay day day ak xam dagan mu daq ko nag ni dama koo baniir injustice laay bañ a dégg bëgguma ko mën yàlla inna allaha yuhibbul adla justice laa bëgg ñu dem bay doxal injustice loolu mën naa tax lu ne arrivé ndax naqaru suñu borom ci loolu beneen bi topp mooy ci taxaw bi coow li ma dégg am ci lu ma naqari lool ci biir université Dakar université Cheikh Anta Diop te ñi mu dal gën a naqari ndax dañu séeréer ak jola ay dañu ay kan lañ lii nag dafa nuy delloo ci ma jàmbal jàng ci jëfam ju ñaaw aku taxawinam ak war gu ñu war a taxaw nag fi ñu tey normalement kii dañ ko waroon woo tëj ko ndax bu demee bay wax di tudd mbirum joolaa mbirum ethnie te sëñ Mountakha def li mu def ba noppi mbir yi tàmbalee dal muy sular ci wat ak di féewale ay nit wane naan yii ci waasu yi lañ bokk wii ci waasu lañ bokk ay joolaayu nangam ak nangam ay rébël ma jëmbal jàpp du sax ku jar yëkkati kàddu mais nag bis dina ñëw nag parce que du ma dellu si ci li nga xam ne jaar na ko lépp waxuma sax digg ma yoonu murid rek boo ko doon lim fii laay fanaan ci journal la boobu le quotidien moom du journaliste ñoo ko wax journaliste waaye du sëñ Muntaxa def li mu def ba noppi nga ñëw di xëppaat mbir mi bëgg a jaxasewaat man dama sax bi lii xewee université muy étudiants yi doon xeexoo muy joolaay ak séeréer yi lañ wax dama ni sax ndax ñoom mbir mi daal na ngeen xam ni Sénégal gi nekk daal am na ay noone Sénégal yoo xam ne ay Sénégal lañ ci Sénégal lañ juddoo du ñuy tubaab du ñu kenn ay Sénégal lañ cent pour cent juddoo fi bokk fi dañ nag ñu tekkiwul dara ñoo xam ne xaalis ak àdduna jaral na leen ko. loolu ñu mën a xam ci suuf rek danañ ko def ngir jaxase waaw ndax dañ dul yore dereti gor moo juddu ci benn juddu boo xam noonu lay mel waaw ndax étudiants yooyu man li ma leen di wax nañ dellu si à la raison université barabu xeexukaay du barabu xulukaay benn barab sax du barabu xeexukaay xulukaay waaye rawatina université ku jàng xam lan mooy université di nga am leneen loo tàllul loolu nañ dégluwaat Serigne Touba ci yaa ayyuha subyaanu la tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu sëñ Tuubaa am benn préoccupation yow bi bu dul jub ak xam-xam jub ak am benn préoccupation bu dul jub droiture ak xam-xam kun kaatiman li turri wal bu saatanal qasdan wa taalul jila bu fekkee da ngaa bëgg kawe na nga lépp loo xam ne ay jàmbat la muñ ko ba am sa savoir danañ ci dellu soit incha allah diggante ndénkaani Serigne Touba ak xam-xam kon jaaxaar naa ne ñun ñëpp jaar nañ ci université waaye lii xew ni université Dakar gàcce la te man dama doon wax ni médiation war na cee gaaw lool ngir ñoom séeréer soosu wala joolaay ñi nekkoon ci biir université di gaañante ñu taxaw fóonante ba ranko yu tóoru man loolu laay séntu fi mu toll nii ñu jóg dox seen diggante ñi ñi ko seqoon ba ñoom ñëpp ñu tàmpante fóonante borom ko ñuy tuur man loolu rek laay seetlu bi toll waaw bu leen déglu force obscure yi nga xam ne ci ginaaw ànd leen bokk ndey ak bàyyi dëkk boo dem fekk fa joolaa fekk fa séeréer fekk fa wolof fekk fa moo njaagu fekk fa lu rek pëlëg ñëpp nekk bokk ndey bokk bàyyi ñëpp di benn Sénégal yàlla defal leen loo xamante ne bii kër goo dugg sax da ngay far far di far nga fa nga bokk boo demee Casamance fekk fa waa Bawol boo demee boo demee Bawol fekk fa waa Casamance boo demee Waalo boo demee Fuuta boo demee cap boo demee foo dem Saalum yàlla dimbali nu dimbali loo xam ne dafa mel ni ñëpp ñoo bokk ndey baay kon yaakaar naa ne am na foo xam ne waru fa àgg waaye nag ñi xam ci suuf dinañ ci dikkaat ci ma Madiambal Diagne moom ma leen wax loolu talaatay leen doon jotaay murid saadix wan leen li nga xam ne moom la def lépp ci yoon murid man mii jëflante na maa moom bi El Baar nekk général mu wax waxi côté yooyu mu waxoon ba ñu indi ko ci kanam alaaj baar keroog bi muy ñëw dafa daw làqatu waxoon naa leen surtout doomi Bàmba mbaaxaan la àndal bi ko woowee def ni wóoluwu la ànd ak man ci oto ba Tuubaa kooku sax te am nañu ci def sax ay leeral waaye daal loolu état ci mu war da jóg woo ko ne ko li nga bind lu tax nga bind ko foo ko teg parce que kuy bind lu mel noonu rek immédiatement dañ laa def ci kaso bi ginnaaw loolu beneen taxaw seetlu bi mooy euh, Sénégal li tax mel ni réew mi le Sénégal est mal gere yor wu bon lañ ko yor les Sénégalais sont mal protégés kenn aaru leen mal gere yi mooy la ñaata nit ñoo nekk ci ay poste fi mu yoo xam ba ñu retraité ak léegi mat nañ juróomi at la ñeent waa RTS ñi ngi naqarlu ki fa nekk di directeur bi RTS ñi fi mu toll. ba mu retraité ak léegi mat na ñeenti at ay jeunes talent yu nekk fii war a émerger am ay diplôme communication wala même ci RTS ñu war a leen jël tey ba ko retraité ñu teg leen fa fa saasi kooku dem noppalu ji moom ñu bàyyi ko fa ñeenti at ginnaaw bu mu retraité te ñaata yu mel noonu moo am ci Sénégal waxoon naa ko boo demee ci Sénégal am na yoo xam boo koy lekk sax dëtt ngay lekk dëtt riba ngay lekk conscience sax war warlu ko may. loolu mën na am ay benn benn cim réew ñoo xam dañ leen di bàyyi ci poste parce que dañuy ñëpp dañuy d'accord ni kii xëy na il traitement tellement exceptionnel ci place boobu waaye demal ci biir Sénégal nga xool ñaata retraité ñoo nekk di liggéey ba léegi ñu leen di fay ay ay xale yu ndaw nekk fi jàng ba ne ar am ñoo xam ne am nañ expérience nga RTS ak yenn bureau yeneen place ngeen bëgg ni réew mi ngi tege ci yoon ban yoon. ñeenti at ginnaaw boo retraité da ngay fayee ko ay millions ak i indemnité yeneen ak yeneen te li ngay def am ñu la ko dàq ba léegi fi mu toll. Sénégal yi il faut il faut il faut ngeen nangu dëkk il faut ngeen doon il faut ñu doon ay góor nangu dëkk waaw lii dafa ñaaw dafa ruslu ba ñëw ñetti jàmbat beneen yoon bi ci topp mooy loolu Touba la jëm mooy dama gis ni suba ñu julli ji àjjuma ci bëccëg. li may wax ci injustice ñaata dëkk ci Sénégal ñoo fi nekk mais ni ñu sonale waa Mbacke ak tuuba ci masque yi di leen jàpp leen dugal ci oto yi tey rek ci suba tey tey tey ci ajuma ji man néew ma bu kenn masque waaye bu fekkee dañu ab loi ne ko ñëpp def Dakar est-ce que ñu leen ramasser ci oto yi di leen fayee ko 3000 ak jamono ji fi mu ñoo xam ne ñi yóbbu dañ leen di béyee nañ faa def ñeenti fan ñaari dem sax yoruñu ko ñu leen fayee ko 3000 diggante Mbacke Touba laa wax dugal ci oto bi yóbbu. par a takkuñu masque da ngay fay 3000 est-ce que loolu ñu koy def ci dëkk yëpp ndax loolu bu dee ci dëkk yëpp d'accord mais injustice mi noonu li ma doon wax léegi bu fekkee dafa loolu normalement dëkk bu rekkoon waroon nañu saa yu ñu xëyee di ko def mais lu tax ñu ciblé Touba Touba liñ fi liñ fi woon ay nit ci diggante Mbàkke gi jigéen ñi dem marché ñëpp dem nañ ba ndeysaan ñi mewuñu woon dañuy jaar ci mbedd yi di làqatu waaw ma ni xëy na waruñu koo takk. mais dama ne bu ñu leen ko defee lu tax duñ ko defee yeneen dëkk lu tax duñ dem ci yeneen dëkk di leen ramas di leen fayaloo 3000 fii moom ba ba mbir mi tàmbalee bi loolu moo fi loo ci Mbàkke loolu mooy war yoroon dëkk beneen bi topp sëñ Ousseynou mi doon commentaire bi démb ci waxtaanu jotaayu mu Sarr bi am na loo wax ba ma bàyyi la benn numéro téléphone ne leen képp ku yittewoo ci sàq mi wala dara na nga woo ci 77 854 12 54 ndax am na loo xam boo koy commentaire. baax na waaye nga jokkoo ak ñun wax nu exactement li nga gis ban mën a tax jaar ci liñ ci ak fi ko gisee ndax xëy na la tax ko wax day dem ba nga xam ne teg nga ci sa bët loolu nag jokkoo ak ñun day baax ban mën laa laaj laaj ba am ay éléments ak i arguments yoo xam ni ci la ñu mën a jóge taxaw ca loola ñu ngi lay sant bu baax nag di rafetlu gis-gis boobu ak yéene ji xalaat bi yépp te mu jëm ci Touba waaye numéro bi moom saa yu nekk mi ngi daw ci suuf euh, su ko ne mën na cee woote. ci mbir ma fu mën a jëm rek li nga xam bëgg nga ko wax ñu wala loo xam ne bëgg nga koo jàppe ci liggéeyu Saxum Touba bi wala ci ci loo xam ne da ko bëgg a wax ñu dégg ko incha allah wax naa numéro bi léegi kon noo ngi leen di gërëm di leen sant lii daal tey moo doon tey jotaay moo doon nekk sëriñ bi njaareem lii ci toppoon nag ay taxaw rek seetlu la yoo xam ne ñun ñëpp nañ ko bokk seetlu waaw incha allah dinañ dikk ci waaju koor talaata bu soobee yàlla vingt heures trente jotaay Mouride Sarix bi dana ci ñëw ñu ngi leen di sant leen gërëm di leen baalu àq di leen seen gërëm sëñ Ablaye Sow mi nekkoon ci wàllu xarala yi ak mbokk yi liggéey bi yëpp sëñ Cheikh lu mu ñëpp rek ñu leen di liggéey di leen sant ci taxawaay bokk yi topp mbir mi itam du ma tàyyi di ndax bis bu ne rek saa yu ne mel ni mbir mi tey la tàmbali su la nit séenee bu la xàmmee sax wala dara jumaa ji wala fu mu mën a doon sëñ bi xanaa mbir yi rek ko da ngaa bàyyi waxtaan yi nangam nangam doo lay déglu loolu yëpp man nag li ma man mooy rek bu ma noppee euh, ku nekk boo noppee nga fexe ba xamal ko ci rek <laughs> waaw partagé ko ñoom wala nga jox leen lien bi wala nga kii loolu rek laa ci man waaye du ma mën ku nekk sa su ma dajeeg nit nag su ma ko waxee dinaa ko nii te xëy na li ñuy génn du bari ba tax na euh, benn benn yi ngi sax dañu ci xaw a moo tax ma leen nag kon bokk na ci liggéeyal sëriñ bi itam nii nu koy jéeme yéen itam ngeen fexe ba yeneen taalib yi ko bëgg a xam-xam ko yi ci bëgg a jot jot ba mu mën a yaatu ba ñu nga xam ne ñun ñëpp dinañ bokk laabiri may laabiri soo leen ko laabiri jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ba talaata ak jàmm incha allah rabbi tey ngeen topp seen waxtaan yi ci des muy sàmmal sëriñ bi lu moom bu di sept heures suba itam sëñ Maxtaar Mbuub si la turam ak yi ci topp yëpp daal jërë ngeen jëf